lol machallah. sha allah. ak électro bâtiment ana entrepreneur yi ana ñi installation bu mucc 76 902 91 40 75 09 07 wala le 77 769 00 23 77 769 00 23 Darussalam bâtiment, votre satisfaction, votre mission. Darussalam Électrobâtiment en collaboration avec Mafatirol Bichri Peinture. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet ñu ngi leen di nuyu di leen jaar Euh tay nañu ñëwon fi ci suñu chantier bi nek fi di janatu Légui nag ñu toll si plan d'action bi nga xamanteni moy mooy mën naa ne suñu dernière étape bi ñu tollu moy euh, montage euh, matériel yi comme lu si salon bi ñu nekk mën nañ ko présenter mais nag bu leen fàtte ne ngeen ànd ak GGT euh, Daaru Salaam électro bâtiment moo war a leeral fii làmp yi leer sedd guy ak ventilo yu am solo kon su ko defee dañ leen di présenter suñu salon bi moo nekk nii boo xoolee suñu salon bi ñu ngi fi programmé benn ventila benn lampe laissée pour salon bi ak euh, en même temps deux ventilateurs su ko defee en même temps am nañu six spots yu ñu fi war a def mooy spots yi nekk ci plafond bi suñu xoolee placement télé bi aussi moo nekk nii moo nekk nii war na am ay spot cutting modèle yi nga xamante ni moom lañ programmé pour euh, si pla si si décoration pour télé bi voilà moo nekk nii waa su ko defee prise télé tey dañ koy am fii ak euh, prise courant PG yi voilà su ko defee tamit am na ay làmp yoo xam ne nii programmé nañ ko fii aussi pour salon bi lu si mel ne spot yi boo xoolee spot yi moo nekk nii yu simple la rafet na. Euh, deux couleurs lay tàkk bleu et blanc moom lañ choisir pour sano bi voilà en même temps ci angle aussi dañ fa programme aussi ay làmp yu rafet mooy gis nga mooy làmp yi bii ma yor lampe déco la yoo xamante ni comme ça nii lay monté woo quoi yaa ngi gis comme ça ni lay monté làmp yu rafet la ay couleurs yu yaanji yu yaanji yoo xam ne xool ko rek mbégte la moo ci nekk voilà mooy décoration pour salon bi moom tam ci quatre angles yëpp bu si nekk dañ fay am benn muy làmp yoo xamante ni tamit yu rafet la voilà su ko defee tamit yii tamit si lampe listri la lampe yu rafet la yu simple la voilà te gis ngeen ko nii macha allah rafet na lool mu ngi dem ci chambre yi voilà bu dee lampe extérieure bi moo nekk ni aussi ay lampe la yoo xamante ni tamit ay led la mais yu dëgër la te rafet na moom tam gis nga ko comme ça ni lay monté woo monté euh, dana dana rafet coffret bi nga ak euh, différentiel euh, modulaire différentiel ak principal bi ñom ñep fi programme fi alimentation chambre frige yi ak lumière yi ak salon bi yooyu yëpp fii la ñu daje voilà léegi nag après fii la def suñ montage euh, modulaire yi dóor si suñuy peñ voilà def si chaque partie ñu xool modulaire bu mu yembul bu fu war a nekk ñu def ko ba voilà fii mooy placement coffret bi kon su ko defee dañuy jàll si yeneen chambre yu ñu xool ba xam lan ma fay nekk. fii euh, chambre bi ñuy njëkk a jot la première chambre bi la moom tamit dañu fi programmé euh, va et lampe bi moom la ñuy def fii au milieu léegi tamit am nañ fii placement ventilateur ak euh, fii tamit mais placement va et bi am lañ programme fii am na benn prise en bas voilà fii lañ programme suñu prise ak euh, benn contact va et vient loolu lañ fi programme pour chambre bi je crois côté bi tamit am na prise voilà euh, fii boo xoolee mooy suñ couloir bi mooy couloir bi Euh, war nga am maximum 20 spots ak guirlande yi jeu de lumière yi cadeau de lumière au moins voilà ak euh, lampe yo xamanteni moy yo xamanteni nga xamante programmer fi pour couloir bi voilà dina am guirlande aussi fi ben partie la bo xamanteni comme euh, salon à manger la petit salon la dañ fi programmé ben ventilateur ak quelques spots quatre spots ak guirlande bi voilà fi tamit dañ fi programmé télé placement télé la ak prise courant voilà quoi prise yi nga xamante après cours bi tey day mën a am prise ku bëgg a chargé rek mën nga bañ a déplacé wu prise ndax du la sori ci tamit benn espace bu la bu am solo ci kër su ko defee ñuy waat si suñu deux ñuy waat si suñu deuxième chambre deuxième chambre bi tamit même chose rek même programme la ñuy programmer suñu va et vient porte bi placement lampe bi miral la placement ventilateur bi euh, ñu def ko plafond mu génn ci coin yi ay prise voilà ay prise ak euh, va et vient yi waaye da nga ba si bopp la bi nga mën a fay taal en même temps yi bu si nekk ñu dafa prise nga xamante ni euh, pour nga charger wala nga brancher quelque chose du la jafe loo xamante ni da ngay aajowoo prise rek pour nga brancher tamit moom du nekk loo xamante ni lu jafe lay doon moom lañ programme si deuxième chambre bi mooy troisième chambre bi mais moom répétition la rek pour installation bi ni ñu fi programmé mooy léegi dafay am va parce que lampe yi léegi dafa dafa rafet mën nga def benn euh, lampe mu tàkk ay multicolore léegi moo tax dañ koy def va-et-vient daal di servir ay prises ñu euh, def ko miroir vente bi ñu def ko plafond seetloo moo nekk noonu ci kaw. voilà fii tey beneen couloir la bi nga xamante ni moo dend ak chambre parent bi. mooy couloir bi voilà moo ne moo dend ak chambre euh, parent bi ak euh, salon bi voilà moom tamit même chose même répétition lañ fa programmé boo xoolee programmé nañ fa kilim euh, mu am contact prismatique mu am va et vient am na prise en bas voilà boo xoolee fii tamit programme nañ fii pour télé programmé nañ fi pour télé voilà contact bi ngay xamante ni booy entré moom ngay taal mooy va et vient bi milieu lampe bi moo nekk noonu voilà boo xoolee. ventilateur bi tamit moo nekk nii en en bas ci kaw voilà ñun nii si salle de bain bi lampe bi moo nekk noonu lampe salle boo xoolee moom lañu def si miroir bi quoi mu xaw a du moins au plafond quoi mu nekk noonu ci kaw plafond bi bu tàkkee macha allah dafay rafetal salle de bain bi te éclairage bi tey fii. voilà mooy waañ bi mooy moo nekk nii. voilà programme nañ fi contact dafay amaale benn prise pour bu ñuy euh, mixer quelques jus wala yooyu noonu appareil yu nga xamante ni ñuy tàngal ndox wala yi mélanger euh, jus pour programme ay jus yooyu dinañ ko maanaam en am na lampe ci euh, ci kaw voilà. waaw mbokki internet yi kon ñu leen di sant ak gërëm di leen wan dèjà war nañ leen étape yi fu si nekk lañ fa war a def ak lañ fa programme yi kon dañuy daal di jublu rek incha allah. Euh, lu yàggatul dara rek ñu daal di def montage yi def euh, lépp li nga xamante ni wax nañ leen ko fu si nekk la fu war a nekk ñu def ko fa di leen jox dig daje rek xam naa ci kanam tuuti rek ñu daal di àggalee liggéey bi dem si dernier réglage yi kon yi ngeen ànd ak ba tey euh, AIG production ak entreprise Darou Salam électro bâtiment ñu ngi leen di jaajëfal merci beaucoup. yaa mutakabbiran lahu takabburu xaaliqu yaa baari'u yaa musawwiru xafa العزيم إنك الغفور شكور يا علي يا كبير لك علي الشكر والتكبير حفيظ يا مقيت يا عزيز جليل يا كريم يا رقيب أنت الذي صنعه داوزي مبدئ يا مهيد دمه يا مهيد أنت الذي تهي البرايا وتميد يا حي يا قيوم يا واجد mbokk yi comme ni ñu ko waxee rek yaakaar naa liggéey bi fi ñu ci tolloon fu ci nekk rek gisoon nañ xanaa nag di sant yàlla Euh, bi nga xamante ni yàlla def na fépp foo xamante ni làmp war nañ fa monter monter nañ ko ventilo monter nañ fu mu war a nekk spot monter nañ fu mu war a nekk kon alhamdulilah rek la ñuy def di sant yàlla ci li ñu jot a def ci liggéey bi voilà di wax ne ngeen ko ànd ak seen euh, entreprise Darou Salam Electro Bâtiment ñu installé fi installation bi mu mucc ayib yaakaar naa ak installation yi bu ñu ko gis xam naa ne di nga xam ne liggéey bu am solo la bu. loo xamante ni daal bu rafet la ànd ak jamono macha allah su ko defee ñu sant ñu àndal si liggéey bi euh, ñu si mel ne ñu fournir suñu matériel di mu fàttewul Bichri Peinture Bichri Peinture euh, le genre Grasse Sall accompagne suñu lay ak euh, suñu xaadim xaadim Bamba nga xam ne mooy doon livré matériel bi yëpp ñu leen di ziar di leen kontaane di ziar di am mbégte di ziar tamit suñu clients yi nga xamante ne ñu ngi waaw ñu ngi Sénégal ñu ngi partout dans le monde ñu leen di souhaiter di leen jaaree bu baax a baax di leen ñaanal atu jàmm bu ñu jëm yàlla defal ñu si tawféex xéewali ak lépp rek gën a tawféex incha allah ñu ngi kontaane suñu client yëpp di leen jaajëfal di leen wax nii rek la liggéey bi moom mu ngi fii ci bëgg rek boo ñu contacté rek allah ñëw defar bu gën a baax jaa ngeen jëf. يسلمني كتابك المسموع bi fadlika al-aziim yaa sadu